Sénégal bi sifflé gis ngeen Sénégal ñëwaat na ci compétition bi. Ndeysaan mu ngi ne. Côte d'Ivoire. Moussa Faye Ndeysaan moo fare càmmoñ. Moussa Faye moo ñu ngi noonu Sénégal Côte d'Ivoire. Sénégal Côte d'Ivoire Sénégal seen. Ndeysaan d'Ivoire rouge ñoom ñaar ñu ngi noonu. Ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi. jàpp na jàpp na jàpp na Sénégal jàpp na Sénégal jàpp na wër na ko ndomba wala déet senegal jàpp na wër na ko ndomba Sénégal wër na ndomba Sénégal wër na ko ndomba senegal wër na ko ndombo senegal Côte d'Ivoire trois appuis daan na ko senegal daan senegal Sénégal na Sénégal daan na. combat bi diggante ak Côte d'Ivoire. mbokk ñu xool fu ñuy mujj ñoom ñaar. ñaari xale yaa ngi noonu ñu ngi lewaatoo. Sénégal Côte d'Ivoire. arbitre bi àtte na. lu xew avertissement ngóor ñaax Sénégal. avertissement Nigéria. Côte d'Ivoire. appuyer. ñoom ñaare ngi noonu. ndeysaan ñu ngi noonu. ndeysaan ñu ngi noonu. ndaanaan la. mbëru Sénégal bi. ndeysaan Sénégal Côte d'Ivoire. ñu ngi noonu. ndeysaan ñu ngi jàppante Ngor daa bëgg a tànk bi fàqat na ko yóotu na tànk bi xale bi bañ na Côte d'Ivoire tamit ay xale yu ndaanaan la ñu am xale yoo xamante ne mën nañ fomi dañuy bëree des fois nga yaakaar sénégalais yi kuñ ci jàpp dañ lay saax saaxee far mu mujjee metti ci ñoom gis nga xale baa ngay bëree Ngor ñaax Sénégal ceinture bleue Côte d'Ivoire ceinture rouge fàqat na ko Rose bleu. Rouge ble Rouge bleu. ñu ngi noonu Sénégal. Ndeysaan ñu ngi noonu rouge bleu. Rouge bleu. arbitre bi àtte na. avertissement. avertissement. ñoom ñaar ñëpp am nañu avertissement. senegal am na avertissement ndeysaan saan d'Ivoire am na avertissement ñu ngi noonu mu ngi koy jàpp ndeysaan jàppul ngemb li de walla génn nañ saako yi génn nañ arbitre bi sifle waat na ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan jàppaat na ko takk na ko daan na ko ngóor ñaax daan na ngóor ñaax daan na ndeysaan dafa blessé wala daa cramp ñu jóge dëkkam ñëw soutenir moom Gandia Fama ndeysaan nee na bii mooy selec première sélection ñu la sélectionné ko fii ci équipe nationale bi moo tax faaw mu tey ànd ak dal donte mën na fo bi mën cee génn ndaysaan mu ngi noonu Gandia Fama Sénégal Côte d'Ivoire ndaysaan ñu ngi noonu Sénégal Côte d'Ivoire allez les Ivoiriens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 jëli na ko mu bañ ña ngay bëre ñoom ñaar dalu nañu suuf lu mu nar ndeysaan lu mu nar lu mu nar ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi Sénégal bleu won leen ginnaaw ndeysaan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 tamit 100 kilos mu ngi noonu ndaysaan Sénégal ordinateur ak Côte ak Nigéria d'Ivoire ba tey ñu ngi ci compétition bi jàpp na tànk ba bañ na ndaysaan bañ na mu ngi noonu ndaysaan dina du yomb du yomb ndaysaan du yomb jël na tànk bi ordinateur jël na tànk bi dina ko daan wala déet doo ci génn ñi la ëpp doole duñ ci génn day raam génn na saako yi Sénégal gañe na ndaysaan Sénégal gañe na ndaysaan ordinateur ndaysaan Sénégal gañe na ndaysaan ndeysaan Sénégal gagné na Sénégal gagné na ndeysaan ñu ngi noonu 120 kilos Mohamed Bousso alias Boy Faye ndeysaan ak Côte d'Ivoire ñu ngi noonu ndeysaan Boy Faye plaqué na ndeysaan jëli na ko bañ na ndaysaan 120 kilos la Boy Faye jëli na ko daan na ko ndaysaan daan na ko Boy Faye daan na ndaysaan teral rek yanu ba ci kaw dóor ci suuf teral rek